asalaamaaleykum waa senegal maa ngi leen di sant di leen nuyu di leen gërëm yéen ñëpp man la Bougane Gueye maa ngi leen di ñaanal eh, ci weeru koor gi li ñu ci yéene sumb ci yàlla na ko suñu borom sottal yàlla na suñu borom nangu suñu koor ñun ñëpp ci weeru ngëneel wi yàlla na suñu borom def senegal doon réewu xéewal réewu jàmm lépp lu ci nit yéene yàlla na ko ko suñu borom sottalal ñu ngi leen di sant bu baax di sàkku ci kenn ku nekk ci yéen mu ñaanal réew mi ñaanal Sénégal tàmbalee ko ci jullit yi tàmbalee ko ci africain yi boole ci sénégalais yi rawatina sumay xarit su may mbokk ak su may am di jàmm yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yal na yàlla taxawu Sénégal